yi fi amoon mooy mois de mars te gis nañ ne ba ñu bëggee jàpp Ousmane Sonko askan wi fu ne la ñu génne fu ne ci réew mi génn nañ ba lu fi xew xew fi ba am ñu ci ñàkk seen bakkan te président de la république aussi génnoon na fi def sorti mu ne réew mi am na ñam kenn mun leen jàpp parce que nit ñi yam ñu am ñam leen boo leen jàppee xëy na mu taal réew donc Ousmane Sonko est-ce que du puissance boobu tey moom la am. waaw puissance benn amu ko puissance zéro am xam Ousmane Sonko du dara tekkiwul dara mënul dara du amul benn doole bala may dee ñu naan mooy nekk président du nekk sax chef de village nga sigee sorbe dina ko kàcciri du ko duba yu mësul ci àddinaam ndax du dem ngénte il n'est pas bien parti da leen nax dama lay wax tey Sénégal yi nañ yeew Ousmane Sonko du dara même Ziguinchor xale bu ndaw sax bu jógee dafay gagné maa wax lu tax kenn xamu ko Ziguinchor du ci nawetaan Casa Sport président Seydou Sané maa ngi koy nuyu sama xarit c'est l'un de mes meilleurs amis du ñu mun bote deux jours mooy candidat conseil départemental xam na li may wax Casa Sport kuy Casamance da ngay cotiser Casa Sport Sonko mosu joxe dërëmam même pas 1000 francs kon kooku pour moom du Casamance te cadre Casamance yi nekk Dakar yëpp dañu cotiser pour jàppale Casa Sport mosul dem ngénte Ziguinchor mosul dem dëj HLM Néma bi mu bokk mosu fa jënd benn ballon bu jar dix mille francs pour ASC ba donc Ziguinchor nawloo wuñ ko dafa jóg sax Ziguinchor waa par contre élection présidentielle jaar na fi Fatick am doom ju nekk candidat moo Fuuta mu ko ñuy wax Macky Sall Saint-Louis am ku ñuy wax Madické Niang Thiès am ku ñuy wax Idrissa Seck gin jur Issa Sall Casamance yëpp kenn moo fa doon candidat élection présidentielle muy kan Ousmane Sonko ñu ne ñoom balu ñuy far keneen te loolu la wax war a gëmloo far leen seen doom ji man kenn rek may candidat ci Casamance yëpp ndax Abdoulaye Balde daa mujj bàyyi candidature am la aussi boo ko seetloo waa Casamance réaction bu ça se comprend ah bu ñàkk fayda xam nañ ne waa Fatick kat dañu woteele Macky Sall kon ñun nañu woteel suñu doom ji mais moo benn nit la woon rek di candidat mais bi pa xoolal Seydou Sané day dafa nekk candidat di bi pa Durka. même mu nekkul candidat mooy directeur campagne ñoom Benoît Sambou ak ak ak Seydou Sané bii paar ah waa PDS fa nekkoon am seen parti bii paar waa LD waa PIT bii paar waa parti socialiste waa AFP dëkk ca dëkk ba yàgg ca dëkk ba tekk ca dëkk ba bëgg dëkk ba jàppale dëkk ba masul jàppale dëkk ba élection nawetaan mooy élection euh, locale mooy nawetaan xam nga nawetaan dafa am joueur nawetaan moom xam nga mu ngi joué ci kaw mu ngi bokk ci xam ne équipe nationale mais xëy na remplaçant la foofu mais bu ñëwee ci nawetaan du ko faale Sadio Mané du dem joué nawetaan ba mbaali xuma wala foofu Sédhiou noonu la mel rek nawetaan daal dañu nga xamante car affaire quartier la quartier ba kay dimbale nit ñi ci quartier ba bu soxlaa nga ne man maay Ousmane Sonko yaay kan soo dimbale kenn ci quartier ba doo dem dëj doo dem ngénte doo dem doo ñëw grand place waxtaan doo ma xale jox leen bal ne maa leen gën yéen ñëpp samay jaam ngeen yéen waa Casamance maa leen jënd su ma bàyyi leen moom bu ma bëggee rek ñi leen doon dimbale ñëpp ñu fi nekkoon ñëpp di leen jàppale depuis des années ay Robert Sagna ay ñoom Seydou Sagna ñëpp fàttali leen ñëw leen ci man man maa yàlla yàlla ma yónni man maay le ma man maa yonent bi moom du yonent du yàlla du wàlliw bu ñëwee fekk tekkul dala ci dëkk ba gox goxaan élection gox goxaan xam nga gox goxaan dañuy xamante seen biir kii dimbali xale ci bal ci mayo kii dimbali xale ci ay loyer Seydou Sané mi fay salaire footballeur yi xale yi ñu bëgg ko bi ñu gagné keroog coupe du Sénégal dóor jàmbaar pale lañ jubal ci Macky Sall mi di dimbale loolu c'est c'est très important boo seetloo mbir moom yooyu yëgoon nga loolu Casa Sport gagné coupe du Sénégal jubal palais de la République première destination de la coupe du Sénégal le te yoonu Casamance boo jógee final ba Thiès ah mën nañu continuer noonu daal wuti Kaolack yëpp pont bi dem dëgg mais dañoo wàññeeku ñëw Dakar au palais borom palais bi ba borom Sénégal teeru leen wane ne Casamance Sénégal a bokk ñoom ñu am reconnaissance li mu leen jàppale ak li muy defar ci Casamance moom lu mu mës a defar Ziguinchor may may bëgg de dee dut ka bi nga xam ne du moroomam Ziguinchor du ko day jox liggéey xale yi di jàppale jigéen ñi financé leen jàppale mag ñi dafa leen dëkk dëkk yënga loolu sax dëkk ñoom Ousmane Sonko mu defaral mosquée ba ba mu rafet jouru gàmmu benn waayam war a dem tout cas ki mu envoyé pour mu représenter ko ñu ne ñu ne bu ñëwee ñu ay xeer ba pay dafuñ gàmmu yënga loolu waxal waawal déet non yow journaliste bi yëngoo damay damay xool ndax journaliste yi am nañ am mais du ko ñemee wax dëkk dëkk Ousmane Sonko seen village mosquée ba euh, xam nga ni dul kaa ko defar yëg nga ko wala yëg ko yëg nga ni xale yi Pastef yi dañu aaye woon mag ñi ne bu ñu fa gàmmuñu sànneen ay xeer ba gàmmuñu yëg nga loolu xanaa non dama bëggoon aussi xam nga journaliste day am inter ci débat boo mënee yëngu ko rek ma continuer ndax ñeme nga parce que xale yi dañuy saaga xam naa ñu continuer saaga mais boo amee fit rek nee ma ndax yëg nga bala ñu ne fa damay fenn maître journaliste yi amuñu kenn koo xamante ne ñu ngi koy ragal fii ci wax voilà kon boog li ma bëggoon mooy bu fekkee wax naa loo xam ni ñun lépp la ñuy xam nga ki ñu def suñu liggéey de manière objective xam nga comme dañuy informer sénégalais yi waaw te bu ma waxee yenn wax ci confirmé woo ko ci pour informer sénégalais moo tax ñu bëgg nga dem vif directement rek nga wax exactement parce que dañ la ne tey Ousmane Sonko am na loo xamante ne tamit. lu ko nit bañ bañ bañ. aussi war nga ko mën a mën xam nga jeunesse bu ngay expliqué bi. waaw bu léegi bul nangoo confirmer kon bul confirmer mais dama bëggoon Sénégalais yi may xam ne man jomb naa fen te xam may wax bu dee damay fen ne ma ko loolu tax ma ne ndax mën nga confirmer dëkk ñoom Ousmane Sonko dans son village natal mosquée ba jàkka ja Ousmane Sonko ko toj euh, Euh, euh, kii ka dut kaa ko toj defaraat ko peinture ko ba mel ni fanaal ñu ne dañ koy inauguré jour gàmmu booy posté bi taxaw ne paa ba fi ñëw ñu sànni la ay xeer loolu defe naa ne képp kuy suivre euh, information Sénégal am nga ko loolu rek taxoon ma bugg na confirmer ma ne loolu au moins yow yëngu ko waaye bu ñemewoo koo wax man mën naa continuer ndax saaga yi dafay metti xam naa ci ci ci réseaux yi képp ku wax dëgg loo xam ne intéressé wul Sonko wala neexu ko rek ndeysaan ñu saaga la ci laa dëkk waaye saaga yooyu moom a gën a jox doole man saaga yooyu moom may dopee si nga saaga yooyu moo tax may dox ci kaw Sonko suba ngoon damay problème ci kaw boppam yi bëgg a dee lu ne ñu ko yekk man intéressé wuñu ma nee nañ wéy mu ngi wax Sonko faale wu ko est ce que moom mag saal faale na ko Sonko chaque jour mu saaga Macky Sall na da ko yóbbu sax léegi haute de justice Macky Sall da koy multiplier par zéro moom dana may jéem a multiplier par zéro parce que mënu ma tontu c'est différent alors que Macky moom kilifa la réew mi yëpp mooy chef doo dégg mu ngi ne président Macky Macky rek la ñuy wax yow ko xam ne même sa dëkk mosquée ba bañ ko defaraatee ba mu baax iñaan nga ba toll ñetti ni kenn du ko inauguré ndax ki ko war a inauguré mooy Doudou Ka kon Doudou Ka moom moom Ziguinchor moom Casamance moom ak Benoît Sambou ak surtout Seydou Sané kon moom amu fa ñaari nit dama ne la. moom rek candidat yëpp moo nekkoon un un candidat issu de la Casamance te quinze pour cent yi amu ko da Ziguinchor matul 2 pour cent de l' électorat sénégalais xam nga lu am 7 pour cent yu yu Khalifa Sall ak ak 7 pour cent yu Karim Meïssa Wade umpule woon ñoom moom lañ woteel parce que waa kër PDS voté luñ Madi Kenya kon du am un pour cent mooy 1 pour cent sax amu ko. bu ñu woteeloon massivement Madické Niang PDS dina am minimum 7 pour cent mais ñoom dañu dem woteel Ousmane Sonko ba pare Khalifa Sall tey lii wane na ko bi mu ne day jàppale Idrissa Seck wax ko nii rek mais ci suuf ñoom ñëpp dañ jàppale xam naa ci dara ndax boo jëlee Lafia Diop doomu Mamadou Diop ndeysaan ancien maire de Dakar veille veille élection présidentielle Lafia rakku jabar woon Khalifa Sall la ñoo doon ànd di dem ci audience Khalifa Sall dañ ko coopté membre du bureau politique de Pastef du secrétariat de Pastef chargé de la communication te bu nekk xalifiste euh, taxawu Dakar cela pour que ñoom ñu ngi àndoon ak Sonko kon 7 pour cent wu Khalifa 7 pour cent wu Karim bu ñu ko boolee ba 14 ak 1 pour cent parce que bul fàtte ni Ousmane Sonko plus forest la demee assemblée nationale teguñ ci 2 ans xam nga 2017 la. deux mille dix neuf même pas un an et demi même pas un un an euh, deux mois rek mu jógee fi xanaa prix euh, forest daa dem quinze pour cent day wane bu Karim bokkoon am sept pour cent wala huit Khalifa bokk am six wala sept wala huit kon moom du du du dépassé ay prix forest am il faut que nit ñi yeewu. mais il a quand même du mérite maire. a qui a dit qu'il n'a pas du mérite. non dama ne kan moo ne amul mérite non damay bañ damay bañ ko foog ni mhm. dafa am doole ju tax mën na yëngal Sénégal dama ne la mhm. bi ñuy yëngatu noonu ci mu daje dama ne la tombee waral ay gaaf mhm. xam nga woote waat na ay yoon kenn faalewu ko y compris keroog ma Barthélémy Dias dañeen dàq duma leen jàpp leen faran téye leen ba gudd ñu bàyyi nu ñibbi te dara dëkk bi yënguwul dara yëngutu fi xale yi génnoon mooy xale yi xiifoon dem au champ yi di tëbb ceeb di daw meew yi dem sama kër jël ay ginaar ay ay lu daw lu ne ñu dugg ca booba couvre-feu bi la woon xale yi amuñ liggéey liggéey yu ndaw ñu doon def ko sonn lool xiif te ventre vide naa point d'oreille xale yooyu nag ñoo ñoo doon yëngal dëkk bi donc soog ko magasin yi soog plus bande yi nga xam ne soo ko leen giite naan dem la kër jàmbur kër jàmbur pour aji saa ragal El Hadj ragal dellu ginnaaw pour mu mucc loolu yëpp coïncidence la dañ ni dañ ni tombe waral ay gaaf bu mu foog nag mu mu tax mu foog ni loolu lañ tàmm de pression dañu woon le 10 novembre. mais dossier boobu maître dossier euh, Ousmane Sonko Adji Sarr lan moo tax euh, parquet bi ba léegi nangooguñ ubbi dossier bi est-ce que du tey. parquet est-ce que du tey euh, li ñu ragal tey mooy ñu woowaat Ousmane Sonko dëkk bi yëngu comme nu mu meloon. dara du yëngatu yéen daal dafa mel du gën. mais lan mais lan moo tax. lan moo tax lan moo tax xamoo ko dossier bu ba léegi xamoo ko non leeralal ñu dossier bi ubbeeku na mhm. dañ convoqué ko mhm. muy lambar lambari yi diggante këram ak tribunal bi ko convoqué mhm. xam ne bu demee xëy na day am mandat dépôt mu ragal ku ragal prison na nag mu nekk diggante këram góor ki la kër góor gi ñu oo ko 9 heures 9 matin juge oo la nga xam ne ku juge oo lu ne mën na ca topp 9 heures soo génn sa kër ku la dul xaar waroo koo xaar tu juges du négaté pour dire yabaate Ousmane Sonko ak ni mu bëggee ñàkkalee fayda instruction judiciaire ak ni mu ragalee juge ak ni ragalee prison tax mu toog këram ba 9h heure bi mu dugg ci bureau juge bi soo ko génn buntu këram si la kër góor gi ba nga koy xool de ci TV na yaa ngi ko na ko baxayoo xaw ma mu ngi dox oto Ousmane Sonko tant que na nga ko baxayoo ah ak caméra am ñoo ñoo ñoo gaaw. oto Ousmane Sonko muy raam di daw zéro à l'heure di raam di raam ba budd direction Sonatel ci VDN bi xale yi soog ñëw parce que boobu seen TV ak wal fajari télé opposition yooyu ñu ngi wax naan waa fii la toll mu ngi nii xale yi di daw di ñëw Ousmane toll na fii nangam nangam gars yi da xale yi di daw di ñëw donc ñoo fexe ba mu attroupement bàyyi midi et demi mu soog a yegg rond point ba route de Wakam foofu nga matal sa un kilomètre distance boobu quatre heures de temps ku xam ne juge ba ak toog la nekk est-ce que c'est correct juge war la convoquer neuf heures midi et demi fekk la nga raam di daw léegi taxaw yëg la say loxo ñu tàcc la wër la ba bañ sànni lacrymogène yi pour ñu dégager xam nga am na ba yeggee Mermoz ba mujj ko jël këf ko yóbbu ko gendarmerie ni y a trouble à l'ordre public ndax bu attroupement bi am na ñu ne ko dañ jaar corniche da jaar corniche daw xam nga corniche mënu am attroupement frrr mais pas ko dugg palais mu ne moom Blaise Diagne la jaar bu nda cité universitaire te boobu tardé na quatre heures de temps ku gis au neuf heures midi et demi ñu ne la gaawal jaar ni ndax nga yegg nga ne noonu damay jaar damay promenade damay jaar buntu cité universitaire Blaise Diagne jaar buntu euh, Tilène jaar Sandaga tourné nag pour dem pale yegg fa ay dix neuf heures. mais lu mu doon ut gisoo ne am na ko am na ko parce que bëgg toon dem prison te mus na donc def na dof solu na terewul tëdd na ñetti fan gendarmerie ci ci karo yi dañ ko mujj jël foofu di ko def trouble ordre public wala nga wujji ma dégg ay naafeq ñeme yàlla naan wéy dañ ko waroon a bàyyi mu choisir yoon bi muy jaar ma ne kii bu ma noon juge bi man 9h05 rek ma dese na mandat dama ne di ko dégg ba midi et demi ñu ne ko na gaaw jël corniche bi ñëpp xam ne tribunal corniche bi moo gën a gaaw mu ne non man mi laay jaar Blaise Diagne fi car rapide di nekk ak buuxante bi laay jaar jaar seen universitaire xale yi tàccu ma ma wax ñoom soo avancé dem ba bu dëkk leen ma waxtaan ak ñoom jàll dem ba Sandaga def fa deux heures de temps soo ko bët soo ko wuti palais bu ko defee timis jot kuy au neuf ci suba loolu xam nga lu muy wone que respecté wul justice ci temps yi lépp loo wax bu saagale Samba Sall saaga Bassirou Gueye saaga saaga Mamadou Seck juge bu ñi ko yore dossier bi saaga Malick Sall saaga saaga Antoine Diome saaga Macky Sall ni complot la salon de massage boo fa demee dañ lay yeew sa tànk salon jéppale salon bi comploté la da ngay dem ku fa jot kenn du génn yow député nga am nga droit génn am nga garde corps nga bàyyi fa garde corps yi am nga chauffeur nga bàyyi fa chauffeur bi jël sa karkaat jël sa capuchon nëbb sa kanam looy nëbbatu lu tax yow kenn nga dem nga dem ci salon de massage xale yi waroon a wàcc toog di leen ne waruñoo wàcc ndax yow loolu complot la mbàggum jëmm xam ni kenn tu génn vingt heures à partir de vingt heures couvre-feu am na ay chauffeur am garde de corps mu bàyyi leen fa génn génn sàcc xam lu mooy catimini bi ñuy wax daw dem ci benn salon de massage dañoo comploté pour mu dem ci salon bi heure boo xam ne kenn warul génn couvre-feu la xale yi waroon a wàcc patron bi xale yi Ndiaye dinañ bu leen wàcc. ah ndeysaan sama client aji saar man xamoon yow docteur nga man xamoon médecin la xamoon jàng na kinésithérapie xamoon jàng na sa école ah aji yow nekkee aji saar aji aji rabi saar nekkee yow docteur nga bay faj est-ce que yow da ngay faj yow moom médecin la kon aji saar yow kay tontu ko sa bopp. <laughs> ku wax feeñ de sa waay daanu nga yow nga doo faj Adji Sarr faje xam nga Ousmane Sonko Adji Sarr ko du faj ba mu jugee di dem ci salon de massage mhm. Ousmane Sonko dafa demoon pour massé wu ci li wax ci li mu wax ci lañ mën a sukkandiku waaw demoon pour massé ak pour faju massage dañ jàpp ne thérapie moom moo ne dafay bu ko feebar mu jàppee fii yàgg na koo jàpp day métti lool waaw dafa demoon faju ji loolu ñëpp dégg donc couvre-feu bi soo mënatul toog waaw am na nag ay médecins yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ay kinésithérapeute jàng ko di ko def xale bu jigéen ma raay rek la mën raay mu sedd xanaa ba dafa am sëriñ la buy raay mu sedd raay mu sedd boobu boobu sëriñ mu ay aji saar sama cliente aji naka yow da ngay raay rek mu sedd d'accord kontaan naa kon may yàlla la am docteur yi nekk faj fe feebaru ndigg moom bu rek ndigg sedd ah Sonko de lu Sonko de moo bëri doole lu wax rek ñu nangul ko ko lu mu wax rek yëngatuwul nee naa la nee naa la circonstance bi mooy nit ñi dañu xiifoon sonn couvre-feu bi metti banlieue bi metti ñu tëj leen. lan moo tax ba ñu libéré Ousmane Sonko rek bi automatiquement dafa jeex. non tension jeexul tension amul benn moment la précis bande yi dugg ci mooy chefu bande yi moom Ousmane Sonko c'est le en chef. dafa am groupe bandi groupe yoo xam ne ñu bëgg a taal Sénégal Ousmane Sonko taalkat yi Sénégal la bu ñu ko bàyyi woon taal na Sénégal bu yàgg de loolu rek na ci bopp bi benn institution respecté wu ko nii le chef de l' état qui est une institution l'assemblée nationale qui est institution la justice nee justice amul kon moom benn institution nangu ko kon lu am anarchie kon bu ñu ko toppee lu neex waaye mu def ku violé ñu ne dañ la comploté ku rey nit ne bon c' est pas lu waay def rek ku jaay ay visa ñu ne da nga war a génn prison donc ñoom daal ñoo gën a maar justice bi daal njaaxum bu ñu def waruñu leen a tudd dañu war a bàyyi raay lu ñu def rek ñoom ñoom daal ñoom senegal daal ñoom daal loo mën nouveau type de sénégalais fort puissant influent ba nekk ba nekk intouchable intouchable bu ñu la jiñee viol doo dem prison boo jëlee ay visa jàmbur boo diggée ni visa jox la xaalisam nanga woo ko delloo xaalisam ñu jàpp ne ñaar ñu bàyyi ko moom mi nga xam ne victime la gën a mën ne dañ may bàyyi wala ma taal dëkk bi ñii day war nañ jox ci ñoom nag xanaa ñoo moom Sénégal léegi te ñii buñ moomoon Sénégal de jàmm du fi am waxe signé leen jàmm ñu luy signé pour la paix bëgguñu jàmm nit ay lañu kenn du leen jox suñu réew mi maire yi ñuy wax kan mooy xool batterie bi jaar di ko jox ay maire Dakar fii la taxu ni chrétien yi fii la taxaw ni bi ñu jàppee bi ñu jàppee Guy Marius Sagna li mu nekk catholique moo tax ñu jàpp ko bu doon Mbàkke la sant wala si wala laay wala mu nekk jullit kenn du ko tëj kon mu ngi bëgg chrétien yi xeex ak jullit yi kooku gën a garaaw Gaston Mbengue dama bëggoon ñu avance ci dossier Ousmane Sonko pour ñu mun ko tënk mun ko tëj ndax boobu ba léegi aussi am na ay semblement yu am ci magistrature bi euh, boobu ba kenn déggagul ñu wax ci dossier Ousmane Sonko beeg te gisoon nañ ne ba barki dem ba ñu jàppee Barthélemy Diaz dégg nañ le président la République ci boppam mu ne moom bu yëgoon ne ba ñuy convoqué Barthélemy Diaz da leen wax nañ bàyyi ba élection bi passé est-ce que tey ka Ousmane Sonko tey gisoon ne tey amul benn juge wala benn magistrat bu ñame suliwaat dossier yaa ma doon laaj soo tuguma ci woon lu tax parquet bloqué dossier ubbi wuñ ko ubbi nañ ko inculpé nañ ko téye nañ passeport amul droit génn Sénégal day dem tous les quinze jours signé ji day làqatu wër mur yi si yéen a ngi génn demanam bu ko defee ñu yóbbu ci kaso bi par contre ana ki yore woon dossier bi anamu juge Samba Sall da ngeen bëggoon mu ne ci ci bàmmeelam di di di yëngal dossier bi di interroger nit ñi parce que des mois yaay lañ ko soog a remplacer ceci explique cela yéexee même seen zone yi Fouta ëpp de quatre cent ki kii côté Podor la kii côté Matam ñu xëy na ñu bàyyi fen Ousmane Sonko kii lay bàyyi fen Ousmane Sonko dañ koy bàyyi rek muy fen rek fu toll xale bi fen na ba nëpp te bala may dee lu wax rek ay répété ko comme waa Y'en a marre bi ñu répété ni wéy y a deux poids deux du duñu bàyyi kilifa duñu bàyyi Thierno Diallo euh, ba téye kilifa ñëpp répété ko benn maa mel ni ñëpp dañu gisoon ñoom ñaan ñu jaay visa. ñoom ñaar ñuy laaj xaalis kenn moo laaj xaalis kenn moo joxe xaalisam kenn moo lekk xaalisam ki joxe xaalisam dañ koo bàyyi ki téye xaalisam nekk ci prison bi loolu loolu kay du deux poids deux mesures. ku seen candidat ah Me El laaj Seye jeex na yow la ko wax la jeex na Seye non c'est mois xam nga xam nga yàlla li muy def jeunesse bi mën nañ xam ci jàmm ci défendre leen bu méttee bu métti le 23 juin Ousmane Sonko bëggoon bloc fiscal. impôt et domaine ci booru ponti tegale ay tànkam bureau climatisé di jaay suufu Sénégal yi régime Ablaye Wade mu naan régime anti il anti système bu ko doon Ablaye daanu na ma porter ma génne suuf si sàcc bu bon la mais Sénégal moom xam na ne Sénégal dañoo yow ma nax kon bu mu nekk candidat de la jeunesse un candidat voleur et menteur candidat day sàcc di fen du exemple pour la jeunesse. mais li nga wax nii dafa xaw a parce que. dama porte plainte ma génn fenn yaa sàcc jaay waaw te jàpp naa ne Ousmane Sonko bu doon fu ñu tëyee tey bu Ndiaye bi ñu tëjoon lan moo tax xam tey bu Ndiaye yow état naa bu baax lan moo tax tey état du Sénégal tey profité wul si situation boobu pour téye Ousmane Sonko mais parce que Ousmane Sonko du ennemi état du Sénégal erreur ngeen di def Macky Sall bañul Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo def noonu Macky Sall Macky Sall bañul kenn bay bay sacrifié nit au contraire daf koy yërëm ndax dafa demoon ci gorom di raam Mansour Faye ñu ko damaa bëgg a gis Macky Sall bala mu may tëj te mu bàyyi bu ñaay di ko Mansour Faye waxee mu ne masul toog ku ñuy wax Mansour Faye yaa xam mbay ma dafa am <laughs> ak tuuti bandi la c'est-à-dire balancé audio bi ko daaneel man du ma fenn de yaa yaa gën a xam ne wax mu ne waaw boobu nekkul ministre ah mosuma toog ak ku ñuy wax Mansour Faye ak boobu nekkul ministre xanaa Mansour Faye dafa am benn moment tudd Mansour Faye soo ko mën a fen xale bi mën a kàcc te yooyu la ko nit ñi di mais kenn ma su gis du la wax suba ba ngoon la man dañu ma yow da nga Sonko man ne foofu koy bañee yàlla bind lu yàlla bind doomu aadama la gën a bëgg kon kay man ku yàlla bind bëgg naa la mais par contre yàlla ci bàkkaar yi gën a bañ fen ci la bokk à part bokkaale yàlla fen moo ci topp te xale bi fen rek lay def kuy fen suba ba ngoon jot ànd ak équipe bu fenkat ak reykati nit toj kër jàmbur taal ay magasin ni institution yi benn baaxu ci bëgg a décrédibiliser nos institutions ànd ak ay djihadiste bëgg a taal Sénégal danaa xeexe yow te loolu mooy Ousmane Sonko suba ba ngoon jot djihadiste yi moom lañu àndal mooy seen nit jaaykati suuf yi moom lañu àndal am na fi ñu bëri xaalis ñu ñoo koy gën a jàppale ndax ñoo ànd jaay suuf si léegi nag suuf si jeex na yaay na ko ba mu jeex ah damay rey preuve de na ma attaqué moom ko preuve yi pétrole bi pétrole bi la teg ba tam léegi soo ko li muy ñaan li muy def yëpp moo tax muy bind ci pétrole inspecteur des impôts fu mu ñaangee pétrole mais dëmmu pétrole la bëgg a nekk dëmmu suuf la woon internet léegi dëmu pétrole la daa na yàgg naa ko wax Walfadjri laa ko njëkk a wax ak Maodo bi tey liñ ci war a def ñu def preuve yaa ngi fii bëgg woon na ko mu ma gàdde kër yu bëri ak ak ak ak bureau yu bëri ak UC yu bëri pour fu ñu ko sàccee rek wala ñu taal ko rek mu nga fereen mhm. léegi pour pour ñu avancer euh, mais maître sànq sa biir wax nee nga tey Macky Sall waxoon na li fi amoon doot fi am gis nañ mu dem ba Paris mu ne fa personne ne peut m'intimider maa man kenn mënu ma xokkatal. y a raison communication boobu ban jàngan ci def. li mu wax rek moom la engagé woon na dëgg. mais aussi président ku toll ni président la war na mën a dem ba Paris wax ko waxee fii dem ba foofu wax ko fa. fa mu nekkoon di ko wax ay fa nekkoon jaaxle mu bu recevoir leen ni leen bu leen tiit man kenn mënu maa xokkatal sa seen xel dal Sénégal maa ngi fo war na ko faa waxee parce que Sénégal yi nekk diaspora ba leen di recevoir il fallait mu rassurer leen wane ne seen président bi dawul raful dof yooyu di wax du bàkku du ju dara ku yëngu mu rëq ndigam te dëgg la kon moom da seen xel tax wax ko ñoom dañu commencé woon jaaxle ñoom Sénégal yi de la diaspora foo ne Sénégal amatul koo téye ci loxoom Sénégal du bànn bi taxawaalu moo ko di taal dëkk bi moo ko mën téye ne yow Macky li nga yàgg nga wax ne sa waay la. bu ba léegi sa waay la. sa du changé di dañuy dañuy jàppante duñ juboo duñ bokk position parce que man. man ko dima mel rek man ci dëgg yi rek. waaw kay léegi. comme comme moom du ma moom sama xarit la waaw comme dëgg moom moo la ñor gis nañ ne président la bañ ko falee ba léegi. dañu gis ne mu ngi am ñeneen ñoo xamante ne xëy na ñoom ñoo koy génn ñooy génn ci télé bi wala ci rajo yi di ko kaasal bay wax parfois ay tojaange ñu bëggoon xam barki démb dégg nga lu Gaston Mbengue wax ci Barthélemy Diaz ñu bëggoon ci am sa interprétation par rapport ak propos Gaston Mbengue yi. Gaston yàgg na pour président Macky Sall yàgg mais bu demee ba neen ñu sant Diaz motuñu fi sant bu ñu leen fi taaloon aussi. ñu bees ñu génn di ko defaat ku mel ni Gaston Gaston yàgg na defaat Macky Sall. yàgg na défendre aussi premier ministre bu Abdoulaye Dione yàgg na défendre Mimi Touré su ma dëggee lay wax fekkee naa ku ci nekk ci ñoom premier ministre défendre aussi Macky Sall ay yooni yoon kon du ko génn léegi bi nga falee ba pare ca la ca la Gaston su ko génn loolu c'est pas vrai parce que li wax moom la engagé xëy na wax na dëgg xëy na waxul dëgg ba li ma man waxam la waxam wax sa wax wax jàmbur du wax man li wax aw ma lu ma ciy wax aw ma lu ma ciy wax parce que damaa gis ki muy waxal def lu gën a garaaw ñoome yéen ñëpp ngeen ne parti mi ma yow de waxuma yéen yéen ñii population yi ñenn ñi waxuma ko de néew ma maay député du peuple ah oui dama bëgg muy leer aussi ci nit ñi. Sénégal gi pratiquement 77 pour cent yëpp jug di kaas di manifester naan li Gaston wax li Gaston li Gaston ñu ñëw jàkkaar Me El Hadji ñu laaj ko mu ne lool Gaston la engagé. waaw la engagé man fa nga ci toll. parce que ñu tooñ la taxul yow ngay tooñ. ok naa ci wax naa ci xuus tuuti dëgg la li mu wax comme mën na heurter mais nitu dëgg la te boo seetee ay waxam toujours lu wax dëgg la mais am na dëgg yoo xam ne nag euh, du duy neex a wax nit ñi mën nañu ko xalaat ci suuf te kenn du ko yëkkati ci kaw Gaston da ko yëkkati ci kaw yoo xam ni laay wax neexul dégg déggin bi neexul waaye nit ñi dañ koy xalaat ci suuf te kenn du ko wax ci kaw Gaston souvent bu waxee rek ñu ne wax na toj-toj fekk ñu bari ànd nañ ci li muy wax mais ñemewuñ koo wax dafa ne Gaston dafa am fu muy waxee ak ñu muy waxal ku dégg-dégg mooy xam li mu bëgg a wax. sax Barthélémy bi doomam la